Saliou mu Serigne Saliou maman léegi nag dañuy wax ci politique récemment gis nañ ne affaire euh, Ousmane Sonko ak euh, Mame Mbaye Niang dans l'affaire Prodac le 16 mars passé ba ci àdduna ndax ci ci violence hôpital mbir yooyu fi mu avant tout ñuy ñaan Ousmane Sonko yàlla yëkkatiwaat ko ci jàmm ak salaam. parce que population Sénégal mënuñu wax histoire Sénégal deux mille vingt et un deux mille vingt deux mille vingt et un deux mille vingt trois deux mille vingt quatre bii di ñëw mënuñu wax histoire Sénégal wax parti politique gu Sénégal te duñ ci boole Ousmane Sonko. loolu yàlla def na ko mi ngi mel ne ñuy lim seetkatu Sénégal roi de seetkat meilleur de seetkat les femmes des seetkat les reines de vaillantes les messi les kings loolu buñ ko limee xel yëpp ci man lay dem. kon fu nu limee parti politique politique bu ànd ak embouteillage ànd ak buzz ànd ak promo ànd ak lu lu ci ëpp ah violence tout dañuy localiser lépp mënuñu ci génne Ousmane Sonko kon dañuy ñaan yàlla yàlla fëgg boppam mu dellu siwaat ci arène bi ndax langue politique gi arène la bëri la ndax man mii di wax ak yow sama sama sama sama concurrence la parce que 2024 tout le moment bëgg naa poser wu candidature kon damay soxla moom mu ñëw ñu jàkkaarloo. Euh, waa parce que xajuma ci ginnaaw kenn li ma xaj mooy doxal sama bopp mbaa nit koo xam ne wóor na ma ne man attan na sama dayo mu boot ma te xam naa gars yi boot ma ñem ñi ko ñeme bariwul quoi hmm. parce que mille femmes ñoo nekk sama ginnaaw kon te par te ñi ma bëgg te yegg seegunu ak samay fans ak ñi nga xam ne dañ maa bëgg te yàlla tax te ñu may bëgg gis te xamuñu fu ñuy jaar pour gis ma su ma wootee kan su ma posé woo candidature 2024 am naa lu ma war a forni Sénégal parce que social lañ soxla te kenn mënuma ci social ci réew mi fi mu toll. parce que saa yu ma tëddee di nelaw conscience bu ma am rek am naa benn solu solution boo xam ne pour soutenir ki loxoom nekk ci suuf ma may ko loxo mu jóg la. mën nañ la mën mun nañ ma xaar. tout le moment nañ ma xaar ci tous les points. tout le moment nañ ma xaar maa ngi ci yoon bi te vision boobu laa am objet boobu laa am te dinaa ci maa ngi ciy dox maa ngi ciy wax te maa ngi ci kanam di dem. waaw loolu nañ ko xaar nañ ko sóor bu baax. waaw procès Ousmane Sonko Mame mbay Niang Proses Adji sar Ousmane Sonko lépp ay projet la te aktor acteur la am muy Ousmane Sonko moom moom projet yi parce que ñoom ñëpp moom la xaar ci procès il faut damay bañ nga laajaat ma ci Adji Sarr muy gudd moo ma localiser ko na ay procès yo xam la sénégalais koy xaar ma man lima ñaan yalla di Senegal, bëgg man jàmmi Sénégal mooy sama jam. te mënuñu wax Sénégal te xaaruñu ci dama dul seet nak lu neex wala may seet lu neex opposition ndax dama ceeb bokk ndax li ma yor opposition bu ma ko jox nga jàll danga may xaar pour am réew bu dee état la daf may xaar parce que mën naa ko yóbbu fenn parce que fi laa juddoo man Pikine laa juddoo yëmbal laa yaroo Parcelles laa dëkk du ma étranger oto bi wàccewu ma fa du ma ngaaka fi laa dëkk je suis la sénégalaise damay sol zone jaune rouge nekk maman nationale awma lu may tiit ci sama pays ma taxaw war a am lu ma war a dogal te duma ko wax i ka nga xool ka ne yow li may wax arrangé na la nga jël i ka nga xool li may wax arrangé wu la nga doxal mais boo yoree nopp garmi man benn benn homme politique laa nekkal te du fay ba mukk homme politique de meilleur la bu amul daray tooñ lu amul daray violance bu amul dara lu xam ne jàmm lay am te kantaaka ñi ngi dund ak àdduna ba àdduna yi tukki moom ku dul kuy kuy bu dul folleeku la man candidature boobu laa àndal quoi man sama candidature bu ñu voté mu gañe bu ñu voté wul mu gañe te kartam chaque jour pay lay nekk muy sëriñ saaliw man sëriñ saaliw laa yaakaar li may regg kenn mënatuma koo jox ci réew mi barke sëriñ Bamba te ba ma dalee wax ci réew mi muy am ak tey ndimbalu yàlla sunu boroom la te nañ dem vaar bu nu demee vaar bi ma nee maire yu bari dañ leen di raxas ci Sénégal maire yëpp dañuy jël seeni place li ci ëpp ci ay maire dañ leen di raxas am na vaar nañ dem vaar man maa fi seetkat bu ubbi liñ ci télévision maay seetkat boo xam ne maanaam dem leen vaar keneen kuñ fi dem vaar tegal la say ginnaaw kër yu bari nag yu ndaw de yu mag a mag ay ginnaaw ñu ci bari ci samay wax la ñuy basé di ko jël di ci wax ba ren gi déwén parce que xam nañ ne man lu ma wax rek yàlla suñ borom am na lu mu def ci sama jëmm ji barke Sëriñ Bamba ba tax na duma ma xool lu neex sénégalais yi mais projet Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko nañ ñu dimbali te yàlla tax ñu jéem koo regle ci nu mu mën a gën a gaawee ñu ñu nekk ci jàmm bu nekkee ne Ousmane Sonko. en tant que citoyen en tant que Sénégal boo xam ne Sénégal bi ci la bokk fi la am parent fi la am lépp fi la am ñi ko bëgg muy soppe ndaw ñi mu am fu nu ko teg ful bi topp ko kon il est temps mu noppal waa Sénégal ci moom mu régler situation bi mu jeex parce que am na ay preuve na génne ay preuve am ne preuve yaa ngi nii ñun ñëpp preuve bi dama yaakaar ne cas bii xew ñu di ko waxtaane ñu di ko dégg ñu koy gis suñu bët di nu ko may te duñu ay gone am na loo xam ne jarul Sénégal di ah. parce que dañ ko war a teg ci taabal ji maa ko yor épinglé naa ko mais na ko teg ci taabal ji bu ko tegee ci table ci ñoom ñaar rek mën nañoo wuy ji yaakaar naa ni ñaari nit sax waruñu faa mën a nekk man warumaa mën a déranger warut a mën a déranger sama moroom ndax yaakaar naa bi mu koy wax maccul sump maccul tàndarma maccul tol moom moo ne yor naa épingle te vaar dafa doy waar na dañ koy tegaat kon ku yor loolu wax loolu ne moom moo ko amee kii ne ko indil ma ko nga indil ma ko samay preuve war na ko mën a dem yóbbul ay preuve ci ki leen war a àtte mu àttal na kooku tamit loolu moo ko fa teg muy suñu justice. Mame Mbaye Niang tamit bu fekkee ne moom Ousmane Sonko da koo wax loolu parce que affaire homme la te moom xam na ne lii ko Ousmane Sonko wax Ousmane Sonko yorut loolu da ay wax la woon rek wala ci biir tooñ wala clashante la moo tax mu wax ko ko te moom mu xam ne lii kat bokk na ci homme bokk na ci réew ci réew ni muy doxee chaque jour nit mën a waxal nit leen te fekk na du noonu yaakaar naa Ousmane moom tamit Mame Mbaye war na mën a taxaw Ousmane Sonko ni ko jéggal ma dama la doon tooñ bu dee yoru ko bu dee yoru ko war na ko wax ne jéggal ma affaire tooñ la ndax ñoom ñoo far. bu liy jeexee après ñoom dañuy gisee ay gaañ lañu ay copain lañu ay nit ñoo xam ne la yàgg nañoo daje. politique moo tam di dox di dox comme làmb ak làmb ni muy doxee mbër ba mbër ak mbër di signé contrat di waxante wax yu ñaaw mais bu ñu paree bu ñu desewaatee dañuy gise dañuy gisewaat ci dëj yi dañuy gisewaat ci ngénte yi ndax ñoom ay xarit lañu ay doomu nday lañu kon politique warut a mën a jar lii. ndax dafa am ay innocent yu nekk seen ginnaaw te comprendre nu te ñi ngi sànku ñi ngi yàq suñu alalu réew ñi ngi yàq suñu image réew ñi ngi yàq suñu senegal te lii rafetul ci Sénégal mu koy yàq xol yaa ngi gën a féewaloo da ngay gis maa nga rakk sax bokku kër kii ne man Macky laa kii ne man Sonko laa ñu dem bay xeex ci kër yi démb rek am na ñaar ñu fi xeex ba ñu këpp seen cinu añ man maa leen mujj yàqal ci mbaxalu Saalum gi ma toggoon xam nga loolu jaru ko te Sonko teg na taabal Sonko démb defaral nañ ko añam defaral ko taabal dressé ko Macky Sall añee na taabal ñu dressé ko ñoom ñu këpp seen añu kër lor gone yee ca kër ga loolu ñëpp léegi loolu mu ngi ràmba dugg ci kër yi dugg na ci biru yi dugg na fépp kon Mame Mbaye Niang tamit doomu Sénégal la war na xam ne kii nawleem la ñu waxtaanee ko ci néeg nit ñi wax ci ñu séq jàmm man mii sax mën naa cee dox ay tànku jàmm pourquoi pas nama def mam ndjay savon ak ak aïssa rasoul ñu jubboo pourquoi pas man li tendance rek mënon na dem ci mambay ñaa ni sonko kat neena li lii bu dee ne dara nama wax sonko bu dee dencul dara nama wo ci pet ni ma kat man dama waxoon ne dossier bi épinglé la waye man yoruma lu nu épinglé bu ko defee man tamé ma so sama dal dem ci mambay ñaa ko sonko la doon togn mais djéggal ko ñu jéggalante ñu nekkat ci ah. mais pourquoi pas lolu procès bi dàq nañ ko ba 30 mars est ce que doon may exclusivité loo gis loo xam ne ci procès bi lañ procès bi du yomb te tout le moment li sonko bëgg su ko amee procès boobu lu ñuy dàqaat la du am la 30 sonko wax ci ma wax bu kenn samay wax bu ko kenn jël di ko tëggaatee neneen bu ko kenn tëgg caq bu ko kenn tëgg palir bu ko kenn chapeau maa ko wax procès bi ci renvoyé lay mujj wala dëkk bi di toj ba ñu anul yëg ko. mais mais si mënatul ne waaye Sonko mu mën a ne lay wut. nu mu def ba procès bi ñàkk moom ci la ne man nag samay wax day leer ndax sénégalais yi dañ may déglu diaspora di ma déglu kon dama leen di wax lu leer faruma fenn ndax li may regg kenn mënuma koo jox waaye kenn joxaguma yit nag. suma nit sa joxone ah ma wax ni len kat diw daf ma jox ma dimbali sama ñi motax ma waxe ni ndax man awma lu may ragale talibi Serigne saliw la barke cheikhul qadim suma waré dé damay xamné lima ray deug la ta dem naa bayti laay raay kaaba ga lu ñi xex ñu bari raalu man mom la ray ma leen upp kaaraange fab waye dal leen bëggé deug deug procès bi ci nii ma ko gisee Mame Mbaye Niang yaakaar nan dina am juste bi yaakaar nan dina am te moom la sénégalais yi xaar te war naa am nañu bàyyi nag naa féq gi tey wax dëgg te yàlla tax réew mi sunu réew la ñun ñëpp ko moom te bu jàmm amee ñun ñëppay am jàmm li ma xam nag ci wax mooy bu wax amee nañ ko teg ci dëgg leeral fi mu ñëpp a tiit képp ku bokkoon ci procès bii waxoon ne gis nga épinglé ak gu appoon épinglé dëgg gi lañu ñu boycotté waaye ñëpp a tiit ndax ñoom amuñu preuve bu ñu indi. wasalaam laaj ma leneen. moment euh, euh, euh, kaw pale bi. kaw ñu war a bokk bari nañ de ñi koy xëccoo bari nañ de am na ñu feeñ am na ñu feeñagut ndax man mi tout le moment surprise laa ci surprise laa te beneen jigéen dina ñëw budul man ñun ñetti jigéen la ñuy nekk man nag maa ngi xool waaye ñun ñetti jigéen ragal naa dinañ ci jéem a bokk. waaw ba ñaar dinañ ci bokk waaw ci candidature présidentielle yi mm-hmm. am na ay jeunes waaw mm-hmm. Macky sàll am na ay éléments yu doy waar yoo xam ne mën nañoo téye lu dul réew mi am na ci ñoo xam ne ay surprise dañu mm-hmm. waaw am na ci ñett yoo xam ne dañuy sol mbaxane waaw am na ci trois personnes yoo xam ne dañuy xees kenn ki day sol koppati keneen ki day xaw a sol mbaxana yenn saa mu bàyyi noonu kenn ki dafa njool ñeneen ñaari dañoo gàtt kenn ki moo gën a féete jeune waaye mbooloo dañoo nekk ci ginnaaw ndax doomu soxna la doomu kilifa la waaye ñeneen ñi tamit ay xeet waa acca lu waay bëgg a xam. waaw man keppaar gi rek laay lancé di ci woo Sénégalais yépp képp koo xam ne bëgg ngaa dimbali jigéen wala nga bëgg a taxawu jigéen. ak mille femmes yi ak li ngeen gis keroog fii la 11 mars ma dajale ko ma taxawal leen te forcé wu ma kenn jëndalu ma kenn nuróole fayu kenn ñëpp a ñëw ak ak seen bëggeel ak seen cofeel te loolu li làqatu la li dese ëpp téeméeri yoon te àndumaak ay gone. am na jeune am na paa am na maire am na imaam am na ustaas am na ku ne ànd defar réew mi rek a nu ñor ci keppaaru Soxna Aïda Saliou ku bëgg a dimbali jigéen social nag laa am awma lu dul social te social laa fas yéenee def ba xëy faatu sama yaram wi sax dama koy joxe social. waaw sama yaram wi dama koy joxe social de ndax su ma gisee ku mënta dox bëgg naa laa boot su ma gisee ku mënta ci mën naa laa tingom su ma gisee loo xam ne doolee koy def dinaa def sama doole. su ma gisee loo xam dafa jar a dox dinaa wàcc sama oto ànd kook nit ñi dox ko ba jigéen ñi am jàmm ci social. kon ku bëgg ñëwal ñu ànd ci sociale bi dimbali jigéen ñi may leen loxo femme développement femme sociale lii laa